هو الذي يفعل ما يريد هنا الذي يريد المريد وهو أي سمد وباقي سبحانه سوك نف وواقي نن سنت تي فدل سنتويد بعد صلاتنا على الوحيد تسير لي أن الدنيا waxe kàddun lan wal ku nekk wey na te seetlu xayru ak saabaam ya ki tax ba yàlla bind mboolem jaam ya teewul mu dem ñu na wa ma muhammadun illa rasul xalxala lin mu doon dunya suran kalak taboo di yaale xayrul wara waa makka dun ko jaale waaye yàlla yóbbu ahmadul makki yoo dellu si yóbbu ahmadul mbakki lu bàyyi sunu maam ceerno ibrahima kële xaadim ci lay maxduma yaari xew ko yetteel fa daarul mu fi xew wi le ki ala seydi ibrahima ma jooy suuf ibran awa tafima أبكي على خليل إبراهيم ما جل جل أسمى قديما جنتك جاي مام جل إبراهيم ويرنجي جاي ليلا بدا بيما كما ما تنو ويرو كرو جاينا نافلون كرون توب سومنا ما جاي سيسان لا ملا سنجندارو ca alsasin cay yàlla maa ka waaru waroote naa waaru garaw ga wan daawu jommete naa mi mbiroy ne reen waawu ay malaakaali xalilullaahi way jooy la leen masaana jaay lillaahi ay na laa fardi xalilillaahi maam Cerno Ibrahima baabullaahi عين على قطب الوراس الجاء خليفة القديم دون الله عين على خرم رجال الله شيخ شيوخ قائد الإله ويمن ويمن مكن يانا ورد def ko sëriñ fu muy jëlee di fardu mooma mayen fa daaru Abdul Xaadir ci darajaay sëriñ ba Abdul Xaadir dellu ma may mutabbi atul asri dellu ma ridal bi duuna suq ma ko waruloon fa daarul mukk ma jooy la see ahmadu awa balla baayam ba fooxoon te kër maam balla ma jooy la see muhammadul abib baayam ba moo appal njëriñ am ceebu waya xalilullahi way salaama la getti wan góor ñu defuk ndajaama wallahi taarongo ñu war na tuuru ma jooyo jooyi ba sama gëdi taaru gi na saa xol bi na saa ceri la ginal na cer nu dem na billahi wallahi tegal sallahi duutuma ree bakke ku duuna laahi naama xalilullaahi ibrahima war ngeen yow jar na xiim garab gu rëy ga kerolan waa daaru nee na jirim naaj waa nga nit ñay jaaru imaanu diinuna aqul imaani wa saa'ibul islaami wa lisaani jar noy kenul diine dirug lislaam moo jëkk moo mujj te moo fi xam daam la yor mbaarum sëriñ ba naay na lee jël yóbbu gal ne daanu ay na maam Cerno dem na yóbbu far sëriñ daam sëriñ mamar ab sañu ngi nuyoog daam kenn dootul xam la alquran ci mbàkk ku mel ni Seex Abdu Maram waa kokki way man a way man express ba teer na te taxuma àgg te wàcc teel na jileeg saxaar te di masin de na maam ceerno met kamisin bëggéy na xoma saxaar gu may dugal bagaasi bawun booti ñooy borom bagaari parce que ba dem na toppi manduwaar ga maam ceerno dem na fekki bamba jom ga fu ma ne fey ne fey subbuun looco yow loo doon ceerno te dangay xooco ku mën a fey na fey suba loo ca yow loo ci doon ca tefe ngay xoot way man way ku ma ne woon ba tarde ca Mustafa bu sa paas di perdi man nga xalifatu di xayrul fardi yaay doomi ahmadul mbakki yu am di bulu ko nag ababakar sadiqo ginnaaw rasulullahi kon nuyu bulu ko xalifa am di mustawa kon tey nu gën faa jooy xadimul ma jooy la am ni mustafa baayam ba ko jàngaloon te def domi baayam ba bu mi jëlee ti baay bu ni Cerno mu di ko xoole bamba ci biir xarnu bu mi jëlee ti kuñ roog maam Cerno mu doon premier rijaali xarnu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 bijaahi afdali man lillahi qad lajaa hamdi li rabbil la sarika lahu wa sadri al yawma nuran malaa حمد لرب الكريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملأ محمد صلوات الله في أبد عليه في حسبه كل به كلأ أدعو إلهي الذي حمت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برأ ناجيته جل أخوما وكرمني تكريم هاد وكل من لقد برئ rahmaanu hablil jamiil xalqi rahmataman yugni ani sharri man qur'aanu xara'a hutumatal mustafa an kulli mafsadatin wartarhamil xalqa ya man jadda um bada'a yaa man jallaan qawadin irham jamii al wara yaa haadiyan radaa ma xawta maa qad nahaa un qalbu min dararin bi jaayi afdali man lillahi qad lajaa ma xawta maa qad nahaa un qalbu min dararin bijaahi afdali man lillahi xad lajaa subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuuna wa salaamun alal mursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiin barke borom Tuubaa di ko yëkkati ci ndigal rek loolu sëriñ Balla ñuy tàmbali di siyaar bu baax a baax kilifa yi fi ko tàmbalee sëriñ Cheikh abibu moom borom daaru moom la ñuy tàmbalee ci moom shari bu baax a baax di ko nuyoo léegi mbooloo mi yëpp it di ci teg sëriñ maam Balla ak sëriñ xaadim Mbàkke ak sëriñ Cheikh abdu ak sëriñ xaadim Ka ak euh, mboole mbokki taalibe yëpp rek sëriñ Cheikh Awa Balla Seck ak it sëriñ Abdoulaye Ndiaye ak mboole mbokk taalibe yëpp ak sëriñ Fallou Seck ak magi taalibe yi nga xamante ne ñoo yore daayira bi tàmbalee ko ci Serigne Miqdaad ak Baye Dame Diop ak Serigne Habib ak ñëpp rek muy kàddu yoo nga xamante ni dañ koy nuyoo di ko siyaare bu baax a baax kilifa yi di ci jiital sëñ Cheikh Habibou ni ma ko waxee. kon li waral jataay bi tey rek ni ngeen ko xame dafa dëppook màggaluk soxna Faati Isa fekkoon na it daayira borom daaru bi amoon nañ ci ndigal ci daanaka di ko def ca at yi ba at yu yàggee ba tey waaye day def ñaareelu dimanche weer wu nekk ci lañ koy def li ci ëpp nag kër ñoom Modou Diop lañ koy defee waaye bii yoon soxna Ndey sàkk woon ko nii nañ ko ñëw defee fi te bañ koy jàpp sax daanaka xalaatuñ ci woon màggalu ci Ceyeen gi waaye li suñu borom di def far mu daje kon nag moom ñu ngi soññee ci daayira bi kàddu yi foofu lay jëkkee ñi ciy teew ñëpp ñu ngi leen ciy soññaat bu baax a baax ñu gën koo jàpp ndax ku woote rek bu nu wooteelee borom daaru moom yaakaar naa ni bu foo waa kër borom daaru teewut keneen du beneen woote bu nu bu nu wàlli nag mën nañ faa wàlli waaye bu ñu wooteelee borom daaru moom ñu yaakaar borom daaru bu ñu fa ñëwut kenn du fa nekk kon nag ñu ngi ci dollee soññiwaat bu baax a baax ñu gën cee góorgóorlu bu loolu jàllee comme ni ko sëñ bi waxee rek ni jataay bi tëdde xam naa Serigne Cheikh Awa Balla dana ñu defal waxtaan ci soxna Faati Isa mi nga xamante ni mooy borom bis bi bu jàllee xam naa ñu jox kàddu gi Serigne Cheikh Abibou rek mu yëkkati ci ay kàddu yoo xamante ni da koy jëmale ci mbooloo mi kàddu yu soññee yu jëm ci mbooloo mi yëpp rek xam naa du ñàkkit sëñ Ablaye bu fekkente ni bëgg naa barkeelu ci bisub soxna Faati Isa bu sëñ Cheikh Awa Balla noppee rek ñu jox ko barkeelu ci kon daal loolu la woon ñuy jéglu bu baax a baax ci kàddu yu doon yëkkati ci kanam kilifa yi bu baax a baax kon bisimilah sëriñ Cheikh Awa Balla bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala hadil amin seydina muhammadin makin wa ala alihi wa sahbi zawi ridwani wa tamkin mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo jullit ak mbokkum jullitam muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu noo ngi ci teg ci nuyoo bi ziar waaye jiital ci yooyu yëpp suñu sang bi toog di jëmmi borom daarul Mouhty ci jataay bi di Serigne Cheikh Mbacké Abibou bu ñu tuddee ci jataay bi dina doy ci sëriñ Mame Balla sëriñ Xadim sëriñ Abdou ak ñun bokki taalibe yi euh, nu sant yàlla ci ñëw bi mu fi ñëw nu bokk ak moom jataay bi ndax suñu xéewal la ci toog ak ku mel nii di jëmmi Cheikh Ibra rawatina mu daje ak bis bu tedd bii ñu ci bugg ci waxtaane soxna su baax soosu sëriñ mam Balla nag mu ci dellusi ndax ginnaaw bu mu doonee suma sëriñ mook sëriñ Cheikh Abdou mi ba noppi te doonaat sama xarit ku baax ci man mu seeral ko rek sëriñ bi ndax mu ngi toog te lu dugg ci noppam tey jii boroom daaru dégg na ko di ñaan ci bokki taalibe yi suñu borom may ko wér rafet nañ ci njort nag ndax waa maama yan faw naas fa ku silar bi waaye itam jëfam ci nit ñi xam fi mu bokk xam mooy kan ak yéene gu ko taalibe yéene loolu nag te yàlla na ngay nit yi si Abdu Lahat nee na bu yàggee yàlla ànd ci nee na donte yàlla na nga deel te nit ñëpp ngi ñaan nga wér te yàgg fi loolu nag yàlla mën na ko nangu digtal ko ba tey sëriñ bii di borom daaru ndax yàlla am na fu mu wax fële ca euh, wais na tax naa xaalu anomin buy jaax muy dugg wais na tax naa wala suñu masikoona bil kitaab waqamu salaat inna laa nudii'u ajral muslihiin waaye fële ca yastabsiroona itam day wax ajral mu'miniin waaye ci nama sabilu yoo wax ajral muhsinin mooy zalika bi annahum la yusibuhum samaun wala nasabun fi sabilillahi wala yetti woona mawti an yaqisul kufar wala yanaalu min adwi nayl ila kutiba lahum bi amalun salih na laa laa yuddi ajral muhsinin boo gisee ñaan gi nag ñu gis Sëriñ Tuubaa di ñaanal soxna jaara axfir lana wa laha dama iri taanis yooyu yëpp soxna jaara astur maa yi ba naawul wul tuf bi naa wu biha maam jaaraa ko moom ku toll ni soxna jaar bu suñ tubaay ñaanal li ma wax ci benn ndaje démb ci Marseille ni tarxis bu daanee bu naat bu gileem ñëwee ci joor ga la jëm moo tax mu delluwaat di la ñaanal ci bis bu màgg bi euh, soxna Faati Isa nag sëñ Modou Kara suñ borom wax na man amila saalihan min zakarin aw unsaa wa huwa muumin bari na fële ca waxaal laaw la tattaxisoo waxaan na ko ci faman as la mu itam mu togg góor daf ko togg jigéen wante ku gëm sëriñ Touba la ci lu wóor ku doyloo sëriñ tubaa la ci loolu kenn ku ne dana ci doy sëkk ci ni bi wax ak doomu ju baax ni ko umpali ngeen Serigne Touba te lu mu wax dana am moo ma ni woon maa lay denc xam nga ni loolu ku gëm te doyloo moo koy def te loolu lu gudd la te ñun ñëpp noo bokk xam loolu kon gëm gum gëm Serigne Touba doyloo ko waral loolu mu xam ni moom du faatu la Serigne Touba waxoon kam ni woon assiro ngi maa ngi dem te del si loola mooy waxam fii ma ñëw doo faatu kon ku gëm Serigne Touba la rek doy ne firnde maa lay robal sama bopp ja xamoon na ni dara du ca dañ ndax maayantixu anil hawa xam na ni Serigne Touba ko donn ci rasulilaay ci loolu nag du caagi ni dama tudd Cheikh Awa Balla mu tuddee ma boppam tuddee sama mag ji Serigne Fallou euh, du caagi ni looloo waral ma wax loolu ak jataay bi day lu wér maa ngi ci télévision wax naa ko fu nekk te maa ngi ci ay télévision ci Sénégal di ci liggéey waaye euh, duma rus kaset bi ñu seetaan ko fu ne njëkk jébbu lu am na euh, ñetteel ak ñeenteel ak yooyu yëpp waaye ki ñu wóolu mooy borom Daaru Muxti loolu itam mën naa ko wax fu nekk waaw te di suma ci jàmm wax ay man borom Daaru Muxti la maa ngi fii ak mbindam moom Sëñ Tuubaa daf ko wax ni ko Ibrahima sàkkul naa la soo gisee sama mbind bul sikki sàkk ni Abdou Khadim gërëm na la faw àdduna ak àllaaxira waaw lu ak ya ci aju day gudd waaye juróom-ñeenti lettre yooyu ci silku jawaare benn boo ci jël mu doy sëkk ni moom la doyloo waaw bu ñu delloo ginnaaw tuuti ca Poroxaan it bu mu ko njëkk teg waay juróom taarix saxal na ni Sëñ Tuubaa ci njëkk way juróom mooy doon listixaaram boo doon rasulilaay muy sama àll yu mbaati Omar billaay kon kooku mooy Cheikh Ibra Faty lépp way juróom itam yàgg naa jëf lu baax te dañu wax ni foo gisee góor gu baax ne ko ana jigéen ju baax ji nga àndal foo gisee sët bu baax ne ko ana maam ju baax te ndax waa mal jiddaaru fa kaana li xulaamin yatiimayni fil madina wa kaana taxtoo kanzun lahuma wa kaana abuhuma saliha nee ni ay maamaat yu sori am na tafsir yu wax ni moo waral yàlla dencal leen loolu demee fële ci si fi way saa sori fat suñu borom mu ngi wax ci nan wal baylul tey bu yaxlu jënabaatoo bis ni rabbihi ba aaya ba jeex ku ne xam ni itam ku ñeme woon addiye la bokk na ci bi Sëriñ Tuubaa wër ñetti moo ko joxe loolu itam ku ne xam na ni ñetti dërëm yooyu dugg eh, foo am solo la jamono boobee ndax yi tey Sëriñ Tuubaa ndax dox na trois mois di ko waaw loolu itam eh, bokk na ci njàmbaaram moom soxna si lam wéet dafa bari mënuñu jéggaguñ koo xam ni Seexul Xadiim ko dencal boppam ci jigéen ku dul moom donte am na euh, bariwul mbaa déggaguñ ko mën na joxe ndigal waaye déplacement ba mu def toppatool ko boppam moom rek soxna Fatis rek ak yàlla mi dul tardé ma économie na jox salaas ilaa warab yow ba mu jeex loolu moom rek la Euh, jur nag dana jàll ndax doom doom it dana jàll ndax wayjur daañu téye doom it ndax wayjur waaye dañu téye wayjur it ndax doom waaw mooy waxi fóom innahu mas'ulun dina am am de sëñ bi euh, bu ñu tuddee Ceyeen soxna Fatou Issa la tudd Ceyeen euh, boo ko tuddee ak fudul Ceyeen enregistré loolu ci Serigne Touba. boo ko tuddee rek ki ko deuxième mooy borom Darou Mouhty loolu moom amul céyeen amul gàmm amul màggal amul cant amul dara boo nee Serigne Touba rek Serigne kon Serigne bi euh, mu ngoog fa alilayl am nee na soxna Fati Isa rek la tuddee doom te loolu ñun ñëpp xam na ko loolu itam ak ñàkk jotam nga te kilifa dana da toll foofu sax ku mu bàyyi xel mat ngaa bàyyi xel moom yet la wax ni ko rus naa ne ci biir Cerno nekk ci biti tam boroom daaru ko am ak la muy ñàkk jot lépp am déet waaw ah, loolu itam euh, buñ ko toppee bokk na ci yi nga xam ne ay xasaay sam la wax naa ni bala may dugg ceyeen tuuti mu mel ni fukki jikko yi aliyu na am muy lowo sa jaatu wala irfaanu ma sarafin wala obb wal xurb waxul uns wal jaaru babul ulumi dafa mel ni yooyu boo ko seetaatoon borom daaru am na yëpp ci Serigne Touba xam-xam baag ñambaar gaag doyloo gaag wattu gaag yore njaboot gaag dépense lu mu doon dépense ci Serigne Touba ak loolu yëpp ak ba boo doxee ba ni mu sañcee darul moo teeg la ca xew la ca aju loolu itam euh, borom daaru du caa wéet euh, bu ñu tuddee Thiéyène ak fudul moom waaye tey Céyeen mooy ñetteelu dëkk bu Serigne Touba dem ci sàkku ko ndax 1895 lañ ko yóbbu ba 1902 exil mu dikk 1903 euh, ba 1907 euh, le 6 mai 1907 archives nationales génne dossier Serigne bi ni na dellu si Sénégal dem Céyeen waaye itam. Euh, am nu ci xew fekk na foofu jamono boobu Serigne Touba wax ku ñu wax Serigne xëy benn bis ni ko fu ñuy wax Thièyène ci Sénégal la jëm fa la ma sàmbaram woon biig kon euh, àll ma ni laawul alim ja dikk na mi may saw mi na ulum waaw ak itam yaral xafaaya ja waaw su ko defee ci Thièyène nekk na diggam ak Louga 60 kilomètres waaye 35 kilomètres la diggam ak yang-yang lu tax mu tudd yang-yang fa la chef de canton ba nekkoon ci yooyu jamono euh, la taxoon ñu indi fi sëñ bi résidence surveillée pour ñuy dem ci moom mën a wàññiku ndax ami jafe-jafe ak i gàllankoor ba du ñu mën a baril ay tànk ci sëriñ bi waaye itam ku ma sa bëgg a dem ci sëriñ bi di nga remplir ay conditions di bind saw tur bind li ngay yóbbu bind ñi ngay àndal wax yoon wooy awe wax ñaata fan nga fay def ak kañ ngay ñibb si bu ko defee cercle Louga door laa jox autorisation nga door a mën a dem. <laughs> ah ak impôt bi sëñ Mame Balla ji sàkk la waxee rek kon yooyu yëpp ay gàllankoor la woon yu ci amoon yoo xam ni eh, xew na ca eh, mu nekk dëkk boo xam ni Serigne Touba nee na jolof suuf suñuy tibbe la mas naa laaj benn bis Serigne Afia Mbacke ni ko ñaata kaamil ngeen fi jàng mu wax ko ab lim rakkama moo ko Cheikh Sidi Moukhtar bokk lépp moo doon aas fi imam mu ni ko man Xaadimu Mustafaa de ci sama làmmiñu bopp jàng naa fi junniy kaamil junniy su demee ba di kaat ci njabootu borom daaru njabootu suñu daaw ball suñ fal la si jéey mu laat ko ci jamono xilaaf ak sëriñ Abdoulaat ak sëñ Mbacke Madina ak ya ca xew buñ ci agsee ci kanam dem waxtu bi dana ko may loolu kon euh, dafa mel ni la woon a delsi rek loola fa wax la woon a ngara mu delsiwaat euh, bi mu ko ne jàng naa fi junniy kaamil ci sama làmmiñu bopp wax na itam ni daana wax barab la boo xam ni bu ñuy tibbee la bu mu fonkoon la moom Serigne Touba am na ñu teew liñ gàllankoor nit ñi yépp sëriñ bi am na ñu bari ñu fekk ci sëriñ bi foofu ñu jóge fañ nekkoon ndax ku ñuy wax Ahmadou Aminta Amina Xujje ñëw na fa dëkk Kër baasin ñëw na fi indi ñeenti nit ñu jox sëriñ bi jox sëriñ bi aw fas ak fukki dërëm ak juróom ci yooyu jamono fukki dërëm ak juróom xaalisu la dëkk ñaaxal ñëw na fi indi addiya ñaari giléem yi suuf sànqal ak dugub kon sëriñ moom foo ko mën a nekk rek nit ñi daañu ko fekk ndax la ma waxoon zanaf indi bi laa dara bi ak mën a nekk rek dama wit jërta wax ku baax foo gëstoo gis mbooloo sëriñ Aliou Touré bu mbar indi na fa aw fas woo xam ne ci yooyu jamono jar na ñaari téeméer ci yéen fekk sëriñ Touba Cheikh Ibra Sarr Diagne bu Jasaaka le 14 mai 1908 indi na àddiyaam ci yéen euh, Cheikh Ibra Thiam bu Saloum ñëw na fi indi addiyaam dajeeg sëñ Masamba Diop Samb di egg si Thièyeen kon déglul bu baax li dikk Thièyeen fekk si sëriñ tubaab bala ñoo egg si ci boroom daaru ak kam fa dencal boppam ndax ñaara fa nekk ci ñum denc wala kii moo ko dencal boppam kii mu woolu ko mu ñëw mu faatu muy soxna Fatou Issa ak soxna Mariama Diop mi jën sëñ Issa Diène naar ñoo séq seen barab bi waaye donte moo ko woolu mu ñëw it mu dikk ci ëllëg ba mu egsee rek la wàcc liggéey moom it ku ñu wax Ahmadou Khourédia mooy maami Cheikh Gaynde Fatma jóge na Thiel Maxa ñëw si siyaar si Serigne Touba Thièyeen indi àddiyaam mooy way juru soxna Fatima mi juru seex Mbacké Gaynde Fatma euh, ki ñuy wax Cheikh Ibra Fall Babul Mouridina jóge na ndànd indi ñaari gileem yu sëf dugub ak sanqal ak marchandise yu bari yooyu xamuñu na mu toll yot ko Serigne Touba moom ceyeen la fekk moom ci Serigne Touba bi ñu ko indee foofu pour nit ñi bañ a ñëw nga xam ne kon wa fii ha jàmm man saara jëfee di kan na fii waaw xam ni xam nga am na si binnaas yàlla da koy bàyyi waaye bu dee bu rab bi naas na fa rabbu naas bi naas soo wétlu ko nit ñi yàlla bàyyi la nit ñi boo wétlu ko borom nit ñi mu jox la nit ñi fu ma sa làqoo fu ma sa dawit donte xalwa ñeen fukki fan yi mu doon defit bay lépp ci loxoy borom daaru bu génnee mbooloo mi toog di ko nekk ba ci njaarim toll na jamono yi kenn mënu koo gis foofu nag la waxee woon ni borom daaru moom du ma mënu maa nekk mukk ci biir mu ne ci biti te daana nga nekk doomam enri séréel bu baax li ma la wax daa nga nekk doomi Sëñ Tuubaa ñëw ñu dalal la ci biir ca xam-xam ba nga xam lam xam moom rek ko xam ndax yàllaa ko xamal loola wax daana génn Mamadou Fadal ni ko fee mbaa Mamadou Lamine ñu ko ax ah, kay mu ni naag si mu ñëw moom moom ci yéen bu moom yeewu ko mu dem mu tëjuwaat mu génne tomb tombam yooyu waaye ak lu mën a xew moom mu mës a tàggoo borom daal euh, le 24 mai suñ Daawuda Dia bu mbëllëxi indi na ànd na ak juróom-ñetti nit siyaar si Serigne Touba ñu indi seen addiye ci yéen kon dañ doon bañ ñu dem fa yaakaar naa ni nit ñaa ngi ñëw sëriñ Mor Penda Mbacke ñëw na fa ànd ak ay nit siyaar si sëriñ Ahmadou Kebe bu Ndaqaar ci cercle Tiwaawan ñëw na ci yooyu jamono moom it ku nuy wax Mbaar Kan ci serkalu Dagana indi na addiyam ci yéen kon mbooloo ngi dikk sëriñ Cheikh Coro mbakke ñëw na ci moo doon xaadi Louga ci yooyu jamono te ñii daanaka dañ fa daje euh, ma Njaay Ba bu kokki siyaar si na sëriñ bi ceyeen sëriñ ma Lamine Ndiaye mu nga dëkkoon aaneen ca bawal ñëw na ceyeen wante ba tey ci ceyeen ci la waxee lii may bëgg a wax ci la waxee Cheikh Moustapha sëñ ma roqee bu sa sëriñ Fallu ni leen awma doom awma rakk awma mbokk yii fi la leen ko waxee euh, li fi nekk daal jaayante ci taxaam ñu door laa nangul lu ne lu ci nekk lañ lay askanale ci yoola wax nañ ni nag ci yooyu jamono Serigne Fallou daal di rot moom ni ko man jaay naa li ñuy tudd njureel foofu la jébbaloo ba waxtu benn wetu bi li iraada jooju lakkum di koy oxsa bi xar aada ne ñu ci yéen la amee Cheikh Moustapha jébbalu te ci dikk giit seex Mor Diarra magam borom saam dikk na siyaar Serigne Touba ci nañu foofu ñii ma a limal nee nañ foofu lañ jébbaloo muy Serigne Massamba Serigne Fallou Cheikh Moudou Moussa Serigne ma roqee Bousso kon lu xew ci yéen bari na euh, bi mu waxee dama leen bëgg laa biree ñu daal di jaayant ñu ni Serigne Fallou njëkk raam euh, le 6 mai 1907 ba 14 janvier 1912 ci la beneen dogal ñëw ñu yóbbu sëriñ bi njaareem pour mu bàyyi ko ci waaye bala muy dem njaarim nag ma wax la ne la foofu euh, soxna may Kubra fa la gane àdduna soxna Mariyu Mbàkkim seex Moustapha ci yéen la gane àdduna sëriñ Abdou Karim taw sëñ Fallu fa la gane àdduna sëriñ Abdourahman Mbàkke moom borom Darul Moxti fa la gane àdduna sëriñ Abdul Xudduus mu borom Darul Moxti fa la gane àdduna ba muy jóg di dem nag la Mahmoudan mu sëñ maam Cerno ñëw mu tudde ko cant muy takk di dem rek muy taabal fas wi rek lañ ko dab ni ko suñ mahmudan am nga am nga gan mu ni mooy mahmudan muy ak cant waaye xam ngeen ni eh, ci foofu bala ma taxaw foofu ci ndax léeg-léeg ñu ni céyeen day am ñu ci xew ñetti waxtaan la nga am néeg ak pinc ak ëtt bu biir néeg saa boo ko waxee ci pinc ma lu xew yow a lu xew yow wante ci liñ ci mën a wax ci dégg gu gàtt sunu dégg gu gàtt euh, lépp ci la xew fa la xewee bala may agsi ci Cheikh Ibrahima Fati ndax sëñ Tuubaa ñaari kër la fa amoon bi mu ñëwee gi mu tuddee ko Daarul Xudduus yi Daarul Rahman xam ngeen ni Daarul Xudduus ba mu fa nekkee ci lañ ko déclaré sëriñ Abdul Xudduus mu ne nañ ko tudde Abdou dàkkental ko ci kër euh, Xudduus naka noonu Daarul Rahman loola waral sëñ Abdourahman euh, ba tax Abdoulaye mii Abdoulaye Mbacke mu Sëriñ Tuubaa foofu la gane àdduna en 1907 euh, nee ñu Daaru Rahman la ko fekk waaye Abdoulaye la bind ndax daf ni suñu am suti jaxate damay nekk ci xalwa waaye alxamis si guddi jëm àjjuma dinaa am gan gu màgg ci yàlla boroom cër la da ma ko topp tool nga waxtaan ci ak borom daaru moo yi déglu bu baax waaye ku ko teral yàlla teral la ndax borom cër la xam ngeen ak ci xew ci li ma la junjoon gànnaar la jële way juróom ndax boobaat am na ñun ko doon tegtal mun leen sunu borom am na ku may wax gisaguma ko ñu ni bi mu ko rombee rek la dal di joxoñ ni kii la Jibril wax ak ya ca xew ci lu ñu mën a arrêté pour ñu yem foofu ci googu wet ndax comme doxoon na diggam ak naar yi ak la ca xew mu desu sañ loolu wante lu mën a xew nee na borom cër la lu ñu mën ci màggal ko nañ ko màggal euh, bind Abdullahi ji ni ko ci xalwatu la may fekk waaye euh, guddi googu mu feeñee ñu ni ci la bind xasida ak alhaadi di jëmi ana siratul mustaqim wax nañu nag ni euh, minal xaqi waaye ñoom ñaar ñoo ànd ci li waa wax ni waaye lu gën a wér moom fi saas la ko génne mook euh, minal xaqi ci suba ga ñu la ko taflu ca perma xasida googu ñu ni ku ko gis da texe waaye ku ko sikk sàkk wala yaasu billah dongay tarbiya yi dañoo mës a coow li daa mës bari ci Touba suñu bilaat waaye coow loolu lu mu doon ah dongay tarbiya yi day génn génn xasida ci daari kaamil nee ñu sëñ Touba nee na ku gis texe waaye ku ko sikki sàkk dem sawara mooy jamono yi muy wax euh, déclaration waaye doxan demee waaye ma seet ñu boot loxo ba ci sëñ Touba ñu ngi yow tàngoor la ko def daa daal di gont <laughs> dem bele sëñ bilaat coow li may dégg Touba lu mu ñu ne ko ah dañuy xas diggun taf fii nañ suñ tuwaa ne ko gis texe waaye ku ko sikki sàkk xam nga rek yi fi ndonga boobu ginnaaw mu ngi doon wax yooyu xam nga rek ndonga yi ñoom fa tabarakallah waaye ku sikki sàkk muy sala seer naa yàlla ni wax dara ca dañ tàng si sin tuba daal daal tux daal ah, waaw mu ngoog ah, am na sax man sàkk fii a dax la naara la sin tuba ku am sikki sàkk loolu nag yàgg naa am ku gis li texe loolu yàgg naa am waaw moo tax ànd ak waaju baax baax na parce que suñ koy musal dañ lay dañ ay boole soo ànd ak moom ti déggal ko ndax wala ma jaa amru naa na jëy naa hudan wali si naa amoonu maaw wala ma jaa amru na jëy naa soxiban ñëpp nag day tax teg bi rahmatin minna waaw fa la ma jaa amru naa na jëy naa saale an wali si naa amoonu maaw même asabul kax fii seen xaj bés déggal gum leen déggal ko musal waxuma xaadimu musa ànd ak waa ju baax te déggal ko nag laa wax dama cee daaf déggal ko xoola euh, naa taxaw tuuti baa ngi fi ma toll xam naa ko irtiradiya siñ mu aw ball ku ñuy wax euh, kii njaañ tamidu dafa am bis mu jekki-jekki rek silmaxa waaw bi ñu bi bi mu silmaxa ñokk suñ mu daaw ball mu woolu ko mu ñëw daaru ñu bokk reer munu ko ñooy bokk reer ñu reer ba noppi euh, sëriñ bi ni ko jàllal ci sama ginnaaw tëdd mu di diital sëriñ bi ne ko loolu muy ndigal li nga jàll ci sama ginnaaw tëdd muy ndigal li Mor Awa Tambédou ba ni allah ko wër fajar suñu ma du aw ba ne ko ah ah jógal nodd nañ mu ni bërit ni xifeet xool laa ilaa ilaa lii lu mu doon mu ne ko sëñ Modou ni ko lan la mun ko yaa ko gën a xam mun ko waa kon doxal liggéey amagoo jotu gumba dama lay liggéeyloo waaw nu euh, <laughs> xam ne nga loolu nag ah, addiyey waa gara waa kër gii la ndax xam na sëñ Gora Fall waa Faaleen ak sëñ Modou ndax ku dem ba sa maam jox sëñ Modou aw ñam soos mu xéwlu ba yàgg mu dëbb suukar ñu sotti ca peñ munu ko lii munu ko bëgg lu la neex te suukar neex na munu ko jóg askan mooy maami ndaw see adduna ak àllaaxira koo euh, garanti naa leen àdduna ak àllaaxira loolu Louga la xew bëccëg kon Euh, noonu la bàyyi jàll ñu dox léegi fi ñu tolloon ci céyeen kon ci bunt boobu kon nu bàyyi sëñ Modou noonu ba yeneen jamono taxawul foofu bokk ah. hmm. xam nga ci yéen lañ wax dama barastiku woon tuuti rek ndax kaay leen def nangam ba yàgg nga ni bàyyi leen ko yàlla nanguwul loolu ci moom lañ ko déggee loolu xam ngeen xisa bala ca xew ca Karathil mu suñ mu doo ball lu leen dem yabal ba yàgg mhm. waaw nu dox nu dox nu dox ci boroom daaru sëriñ Abdoulaye moomu kon pour ñu taxaw foofu ci ba beneen yoon ñu dellu ci sëñ Modou jëlal ko kiyam kon moom it Thiéyène la gane àdduna en 1907 waaw kay waaw mu faral bisimilah bu ko defee ñaari kër yooyu moo fi nekkoon ci dëkk bu barkeel boobu kon euh, fa la sëriñ Abdoulaye gane àdduna ginnaaw bu sëriñ bi jógee gànnaar waaw ah, Mbacke jazakallahu xeyran waaye nag defal ma ci bu ma ko ñàkk sëñ bi waaw ah kay sëñ Modou sëñ sëñ bee toll de ah wax saa soxla de kii bu ma ko ñàkk na pare Mbacke waaw waaw kay ah, oto lu may jox hmm, waaye jamono boobu ci date bi ma lay bëgg a jox d'accord nañ ci ni ci la woolu boroom daaru ginnaaw bi mu ne mi ne la àq ba noppi ba le 30 mai ci la maam Thierno agsi ñu ni ci la maam Thierno agsi ci weer woowu ci la soxna Faty Issa wàcc liggéey am nañu saxal ci ni borom daalu ren na ci ñetti xabban am na wuti werante waaye ñu bari nangu nañ ñu ren na ci jamono boobu ñetti xabban ci bis boobu noonu wante bi mu jógee bi mu jógee Thiéyène naa la le 6 mai 1907 samedi 14 janvier 12 ci la dogal ba ñëw ñu ne nañ ko yóbbu njaareem waykat bi neen nag ba muy laata dem la naa ramu masiri déedéet waa ndaam wax ñu loolu waaw parce que Thiéyène yu sëriñ baa fa jógee mi ngi agsi njaareem le 16 mai le 16 janvier altine 12 1912 loolu la ñu wax di 25 ci muharram weeru tamxarit 1330 hijriya ñoom loolu lañ saxal ni ci la sëriñ bu ñëw ba mu ñëwee ba mu jógee Thièyeen dafa bu sagata jolof romb Mbàkke jolof fa la ñu denc maamam ma maam maharam maharam seen maam mu julli farakkaam yooyu daal di agsi dëkk bu ñuy wax wellu mbel dëkku pël la amoon nay bambaado welu mbel googu benn bambaadoo génn jox ko néegam fala fanaan ba mu xëyee la bind raama masiri yi bambaado yi xam nañ leen tubaab bi bambaado moom xam naa ni hmm? wellu mbel dëkku pël gi ci bustaan wet dëkku Sëriñ Abdou Khadre bii boo ko rombee tuuti génn mbàkki jolof romb xabru maam maaram am déet bala nga ak si balloo ji waa ndaam neen fa la seexul xadim binde raamoo masiri ilaa jurbel sàkku nañ ma jëm njaareem waaye buñ xamoon la ci dem njaareem duñ ko wut la waayenoo sirri maaraamoo maa fi sirri sirri maaraam waaye raamoo masiri ilaa jurbel la daal la sa sin ñoom de mille neuf cent mille trois cent trente ñu ngi bëgg ma dem Jurbel sama dem Jurbel mooy xat fakk kabla xat basa fadla mooy fa dur wala wada fu jaay welu mbel la binde Ramo Massiri néeg bambado boobu mu bindee Ramo yi fanaan fa def nañ ko jumaa sëñ Abdou Lahad si sol daana ko siyaare jëg sëñ Abdou Khadar bambado boo ko jox néegam mu bind fa Ramo Massiri yi xëy dem ba mu ñëwee Diourbel laataan di si kër gu mag booy dugg bu dee Touba nga jóge à gauche bu dee Touba dakaar à droite école élémentaire. Mm. école Ibrahima Thioy élémentaire taax ma ci sës fa la Serigne Touba wàcc ba le 12 12 mille ba le 12 12 1912 ci la Serigne Touba egg si kër gu mag mel ne jant. foofu ci tënk euh, waaye li ko feeñalaat ginnaaw bi ci li gën a dikk ñu dikk ci mooy. sëriñ Fallou Assou Dieye sëriñ Fallou Assou euh, mu Cheikh a bal la borom daaru xam nga sëñ borom daaru daa teel a yee njabootam ci taalibe ndax moo gën a dégg ñëpp sëñ Tuubaa moo gën a dégg ñëpp sëñ Tuubaa njaboot tamit jiit ci nim jiitoo xam nga as-saabiquuna al-awwaluuna mina al-muhaajiriina wal ansaar nga koy xoole gis nga mas naa toog ci njaarim ba yàgg mu ni Mor Mbaye Cissé seetal ma ko jëkk a dajeel mu ñëw kii defar ñëw na ñu defar ko mu ni wëqet daw dajeeg siñ mu daaw wal dikk mu ni ko ko àndal mu ni ko mu daaw ball mu ni ko ah noppi woon naa ci moom yàlla noppi ci yonent bi xanaa ma dolli waaw ah sëriñ Abdoulaye Gane jëleen sëñ Mbàkke Madina à mille huit cent mille neuf cent quatre-vingt-cinq ci dajeeg bis ba Sëñ Blaat eggee rek la pël bu doon jox Sëñ Tuubaa soow ma keroog la faatu Sëñ Blaat jullee ko mu def ko tàngoor lool keroog la kon xam ne liggéey Sëñ Bamba rek am njëriñ dafa agsi rek bi doog ki jël soowum ratt gàtt yi yot Sëñ boot loxoom yooyu topp ko boppam néeg ba fa sëriñ bi nekkoon ab teen la bënn ci céyeen ku xam Thiéyène boo duggee Thiéyène boo duggee Darou Khoudoss kër gi si càmmoon sooy dugg da naan màkk yem ci teen bi teen boobu mooy néeg bi Sëñ Tuubaa dëkke woon ci biir Thiéyène waaw loolu itam 1966 euh, la ko sëñ Fallou Assa Dieye njëkk a découvrir la ko njëkk a découvrir daf daan dox gis nga nangu jëlul ciru bañ nangu jëlul ciru bañ parce que bëgg ko bañ jëlul ciru nangu ndax mun ko am a nangu jël na cëru bañ déedéet dégg nga maam Thierno mii bëgg na ciru bañ du ko jële suur Saar Njaañ nag sëy saa jenn ah, moo tax nekkal fi diini moo am solo xoola fanweeri damee la ñett yi doon xëyal àdduna di ko xëccool tey seeni bàmmeel raaf na bëy yaa ngi ci doxantu xoola ñi doon xëyal diine ak a gontal diine ndax seen kër ràpp na tey la gën a neex ndax yàlla leen fay wutu kër goo fi dem tey la gën a neex parce que yàlla leen fa wutu waaye ñi doon xëyee leneen lu dul diine seen kër ràpp na xëy meeñ doon Sëriñ tubaa doon xëyal diine ak sun maam yu baax ñu ci la moonu may jataay bi nu toog ah bu ko defee am na itam ay xew-xew yu am ci ndax euh, xam ngeen ni xas yi sëriñ tubaab bind wuute na ëppaati na doole ëppaati na doole ni tafadul ayat am noonu la tafadul xasayit am xa ama ak sasin ak ama jëy sasin bokkul parce que jëy sasin nee na jaamu yàlla lu wuur ko nangu naan ak sasin nee na lay ab dige woon lii ak pay la ak dig bu ñu ko joxoon biloo ci dagaan dajeeg moom kii bi mu jàng ci la bokk léegi tax fatul bu ta dara way bu naafi xattaaba bi mu way fële ci diggante Cameroun ak Gabon ci bi muy dem bu way baag buy sarwa ndax foofu la amee karam naa ci la bokk mooy bu naafi yooyu nga xam ni ci lañ ko wax ni waaw moom laa la mu xàddiballe lu dul alxuraan ak xasaayit lu dul alxuraan ak addis lii ma ci gën a am na sax ñoo wax ne bi muy way Muxaddamatul Amdah am na fu mu toll foo xam ne dañ ko ni arrêté tagg wi Rasulullah dañu ko ku ko dégg texe am na dogal bu suñu borom jël ci nangam ak nangam ba noppi waaw ko defee nga xam ni man sànn sayri ribba a jëy sa sin mis la masiri rasa ama ak sa sin sabata kaw nu hujju xoola waaw ndax lam yëkku sayri ama jëy sa sin si waa jasa waaw lii nattu la lii ay pay la mhm. léegi nag la mu fa bind ci céyeen fekk na dem na ba ñëw mooy baxar yu sëñ Tuubaa bi demagul li mu bind mooy barri yu bu demee ba ñëw lu mu bindaat ak fu mu ko bind mooy baxar yu comme ni alxuraan am al madani ak makki yi waaw parce que ginnaaw gàddaay lu xew lu wàcc ah madani nga ginnaaw gàddaay lu xew madani nga euh, ginnaaw lu ko jiitu waaw euh, di déggal kilifa yi nag lu am solo la ndax di déglu kilifa ndax gis nga euh, booy gis boo def teral ko léegi nga teral ko yàgg teral jóge fa tedd faw waaye booy def koo gis teddadil ko léegi nga jéem a teddadil ko yàlla teral jóge fa tedd moom muy tedd waaw du xal meññet du soppi gàncax bu jëlee màngo ko di waar ji ko kebe meer lu sax dara kese mbaa kaani mango rek lay sax waaw waaye moom sëñ bi bu rek moom daaru noonu rek la mën a def kon jataay bi am na solo ñu dolli góorgóorlu ci liggéey bi ndax loolu bëgg naa ci insister tuuti ndax euh, ba ci fasaale mi yi ñuy dégg léeg-léeg wóorut ginnaaw sëñ Tuba kenn du ko fecc di ko jox kenn ah? kon fasal sa bopp yaakaar naa moo gën a wóor naan fasaale ma am déet waaw boo defee ku sonnal ku jar a sonnal li jariñu waaye ku sonnal ku jëtu sonnal perte dagee ci tool teeñ teeñ gërëm na leen teeñ la yàlla gërëmul bu dee ñu perte ah boo sonnee fu jëtu sonn da perte rek ah waaye ki ni woon fukk lu mën xaddama nii fukk lu mën xaddama nii aw saara déglu fa najjihi dégg ko kay mat liggéey kullu man ahabbani aw maala illee farsuxu huddan aw maala ah ku ma liggéeyal maa nga am yéene ji tin ci xoola loolu ba ne la rek isa talabtu min ilahi jalaba wali taqudo soxla waxtu talabi li may laaj seeg la bu muy bind tafar sax yow rasulullah li ma doon wut talabtu rasulullah lii foofu xamat la bii minallahi rabbi wa rajalu min xayb te ku yaakaar borom daaru war a dolli sa laxasaay suñ tubaab ne ko Ibrahima. gërëm lool boo defutul dara dara du la wàññeeti dara dara tey ëllëg yàqu la yaakaar. mun ko fi yëg tikki wu sa laxasaay ci lu ma teg sa laxasaay ci. mos ta julli te jàppul. xanaa nee ñu ba muy tuddee sëñ Massamba ak ba muy sëñ ci koso te fay ko la jàng nañ ko ñun ñëpp waaw. ak sar si liggéeyu sëñ bari bi tego ci loxoom lépp. tudd sëñ Abdou Khadir rek doy na doy na maqaam foofu yow mii tuddi kat koo dajal ñu jéggal ko <laughs> loolu xanaa doy na waxuma laa keneen ak keneen ah boo liiree circul jawaar yi la la waxoon am na ci boo xam ni la lu mooy wax mais am na lool film bee du ma ko wax boo demee nga tudd ko sa bopp mu xam ne sëñ waaw dana ko wax ko ci yoon mu dem tudd ko sëñ Abdou Khadir tuddee moo tax loolu yaa ko ñuy wax bu ko defee sëñ waaw mu ngoog fi jógee Thierno Abdou Khadir la koy woowee. nee na du ma weddi waxi maam te du ma weddi waxi sëñ bi. ba pare tudde way juróom doom. waaw am na sax ñu ne ñaar. waaye lu mën a xew euh, ku ko yaakaar war na ku ne waaye rawatina moom. kilifa dañ koy rey danaan wax sama jàkk wata boor laa ci bëgg muy jàpp mu bees njàpp mu bees loolu laa bëgg ci sama jàkk Sëñ Tuubaa bind na ci Gabon ne ko Ibrahima sama njaboot gépp laa wax amul xàjj ak ba may dem yow laa teg ci sa loxo yaa ma doy fu waay nekk ak li ma bind ak dongoy lax saa yeeg tër bi ñëpp ak addi yu ju fi ñëw lépp ci sa loxo laa ko teg xanaa ngeen dëkki Tuubaa in am kana wa illa fa fi ay makaan insha allahu barab bu soob yàlla wala ngeen dëkki Tuubaa bu jàppande ah? léegi li sëñ Blaat ni kam ca teg ba mu ne dénk naa leen yàlla ak yonent sa baay cerno nee na kam ca teg moo mat a lijjanti gi sëñ Tuubaa di hmm? waa bu ko defee kon anaka mën nanoo wàcc ci kàddu gi te xam ni euh, nu waajal màggalu daaru am déet ah. danaa bëgg a dugg ci daaru waaye ma bëggoon ñu bàyyi ko tuuti ba ba bisu ba daaru bu si bu nu fekkee ci kàttanu yàlla bu fekkee ñëw nañu ah dem te ñëw kon xam naa ndax <laughs> wante ndax bind naa ci borom daaru lu bari dama ne iya u lazama fi sirri wa fi alani fa xaasa sultaanan lil ahbaari bokk na ci bo dama ne iyaahu moom képp dong lazama la ma su taqul bu kaas ka ne la kenn moom Sëriñ Tuubaa rek fi sirri wa fi alani nag fa ci sababu loolu xaasala laqi sultaana di sang ñépp li axbaari fóori yi ah sunu waajib ku sëñ tubaa waxuma sëñ tubaa waxu ko doomi sëñ tubaa yu njukkaleeg sëñ Fallu mi doon jàngal na nu yarnu ban ni ar ban ah, sëñ Masaan ni mbind mu rafet ma bàyyi ceeru rek ah, waaye bi ko sëriñ tubaa ne dara dutu la wàññi dara mel ni ko duñ tekki suñu lax saay ci yow xam nga mu suñ tuwaa wax lay seetli yàlla yow ma aajaatul ami la si waxtu faak fee mun ko bi ka ta àllaxtu yaa xayral bariyati min sal yow suñ tuwaa na ku ñu rëbb daarul mooti kenn hmm. la waxoon naa ko dafa na ko sa kenn sama ñaar la fii ma la dëkkaloo itam dama koo tànn ba mu tolloo buntu sàngam ci àjjana muy bayti maqaam foofu mu nekkoon daf la mu dëkkal xam nga toogi jag toogi jag la ñetti ñetti suuf ya yo ya borom daaru yónnee woon su abdu jëng abdu jëng bàll faali toogi jag googal muy arfaan ni mooy toog jag foofu mooy daaru wul dóow pël la woon di am de dóow pël la woon di suuf sala Sëñ Tuubaa xool ni fii mooy toog jag ni ko tuddee ko daarul mooti bind na ci Sëñ Tuubaa bind na ko lettre yaa ngi fi te yaa ngi ci lii sama jibo sax am na yu ma ci def yoo xam ne ci lépp ci borom daaru la woon def ci bi muy départ dem ndar ak yooyu waaye euh, rekk ñu waajale ko bis bële euh, te yàlla na nu yàlla saxal ci jaamu ko ak topp ko te mu nangul nu ko euh, sëñ bi nag yàlla rus na ko lu jaar ci moom it te des na ci rafet njort ndax wu ku lii min laxan bariya sëñ moom jaamu yàlla gu mu siñee des na ci rafet njort dem dajeeg yàlla yóbbaale sëñ bi dal na xel waaw sama benn waaye dañu waxtaan ak moom ma ne ko sama bàyyi darul moxti li diw nag ci diw mu sa bàyyi gañe na la nag sama nijaay moo ko ma net ko mafaal ngum mu ne wax na dëgg de <laughs> ma jox la ma ko sama bàyyi daa àndoon ak mbokkam diw caméra bi moom mu jéblu ci maam Thierno diw jéblu ci diw mun ma ana nga seex sa bàyyi gañe na ko de te doxan dem ba nga gis ca kanam ak yéen waaye la ma waxoon daal waxi mag daal doy na waar rek moom daal euh, mu ngi noonu kon sëñ seex ci jublu woon sa mbégte mbàkk yàlla gémmi sa wayjur wu tedd wa di ñaan yàlla yàggal leen fi ci ginnaaw sëñ seex gu mel ne yombul amul nag ci Sénégal xaw feneen mais Sénégal moom jël milliard jox l'islam dëkk ci néegu bant ci moom lañ ko njëkk a gis. sëñ Tuubaa ko fi defoon moo ko ñaare. isa allah waaw sëñ Tuubaa fi defoon laa ne moo ko ñaare waaye nag euh, maam Thierno joxe dépense ak toog jàngal ak ni mu wari ñëpp la ma wari yaa sama digg ak moom. waaw njaboot dafa am ak xuux yu ci nekk. Hmm. xanaa xamoon nii ngeen def nii jóg dikk France wala Italie wala Belgique Modou Euh, baax na ndax am na ci bàkkaar yoo xam julli du ko far wala alxajj wala siyaam wala alxumra inama yukaffiruha ihtimam bi tal fi talabi umumul maïsa jóg sàkku ji dépasse moo koy fay fay na fi la yàlla turuxun lil jëlin yàlla nañu ci yàlla saxal te defal leen ak barke moo ngi siyaari ñëpp di siyaare waat euh, Serigne Mame Balla beneen yoon Cheikh Awa Balla seen mbokkum taalibe eh, moom ziar ci ndigalu sëriñ bi xam dem ba ñëwaat <laughs> man noo bokk ndey ak waaye maa topp ci moom wax naa ko ci tàmbali kon sama kilifa sama sëriñ moom sëriñ lañ ko tuddee baax ñun seet si ko du yàgg lool waaye nuyoo la ko sëriñ bi sëñ maam Thierno moom la daan dalal sunu sëriñ sëñ maam Thierno mooy sunu sëriñ Daaru Manaan bi ñu ci yóbbu amuñu sax lu mu jëbbuloo sama bàyyi dañuy doomu Cheikh Awa Bal di njëkk gis mooy seenub sëriñ mooy listixaar bi seen mahfuus ba yàgg mu dëpp seen muru muxtaar seen mu xat mbooloo mu bëri nag mu ni dañ taxaw rek damay listixaar ku yi seen saak sëñ daal ku gën a woy waaye fekk nag fi ñu taxaw ci buntu sëñ bi suñu maam Thierno génn ci sëñ bi rek yam ci ñun mu joxeel nu ku nekk téeméer ak keesu suukar nu laa def jébbalu mu ne nag mu ngoog kër gaa ngoog daal wër naa biir kër Cheikh Awa Balla mu ngoog buñ fi génn loo benn bis waaw moom sama mag ma di ko ziar waa baax ñaanal di ko sàkkul ñaari nag njabootam a ngi fi. liggéey dese na tuuti pour retraité ba mu dem ci réew yi fi nekk ak bokki taalibe yi. di ko sàkkul ñaan. ndax sama ndër laay la moom it. waaw yooyu yëpp amee sama yële daf ma ko dénkoon. te daara jooju da nga laay xeeñtu ba. moom si yàlla. asalaamaaleykum wa rahmatulah. si waxtu nag sëñ bi dama laa bëgg a boole ma topp a. ah dama bëgg nga wax ci rek moom boo ñu waxee rek mu réglé sama mbir moom. dinaa ko topp ah. mooy sama maam dinaa ko topp. man na ko de. maa ngi jégalu bu baax mbagg. yàlla mu boole moom. waaw sama xarit la. waxtaanu nag jëkkuwuma ko lool waaye ba beneen yoon. damaa xaw a sonn noo indi war a jógee. maa ngi door ak. ah kon mbaa jërëjëf. bi sant nañ bu baax a baax sëñ Cheikh Awa Balla waxtaan wi wax dëgg kawe na sunu njort lool wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan sunu borom gën leen a bu baax a baax ci barke Serigne Touba xam naa balaa ñu jox sëñ bi rek sëñ Ablaye da cee bëgg barke yàlla lu gàtt rek bu ko defee xam naa ñu jox sëñ bi mu yëkkatee ci ay kàddu bisimilah sëñ Ablaye asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sang bi ñu ngi lay siyaar bu baax di ñaan yàlla borom bi tabaaraka wa taala yàggal fi lool Cheikh Sidil Muxtaar ak borom daarul moxti ak mboolem njabootu Sëñ Tuubaa gépp xam naa ni wax ji du mën a gudd ndax li ko waral mooy sëñ Cheikh Awa Balla wax dëgg yàlla am tooyal nga xol yi fàttali nga nu lu bare bare bare bare bare na la yàlla fay waaye man dama lott ci waxtaan ci maam Cerno ndax li ko waral mooy dama ko sopp sama cofeel ci moom dama ko mënta ndëbbu moo tax mënuma waxtaan ci moom lu bari xanaa rek bi may gëstu di def loolu dongob daara di def fu ne nga defa dem di xool di laaj dama dem ci mel na magum lislaam moo xam ne ñu koy wax bàyyi mbaykan xadim ma nga Tuubaa Cheikh Ibrahima tarbiya juróom-ñaari at mottali ko ci sa Moustapha Fall kon kooku xam ne yoonu murit mm. ca moom laa mujjee ci lii ma di bëgg a wax mooy ginnaaw gannaaw xaadim coow li dafa bari man ma bëggoon a xam gannaaw sëñ Tuubaa kan mooy ñaareel aqulay taala mm. maa fa demal sama bopp mm. ak samay këyit ñu waxtaan yandu naa fa ay yoon mu ne ma Ablaye Ndiaye ma ne ko Mbàkke man dafa am lu ma la bëgg a leeral Sëriñ Bamba ba muy génne Mbàkke baari di dem kenn la bàyyee woon jabootam gi muy kenn la bàyyee woon daara yi muy borom daaru Muxti ak soxna yeeg doom yi ak kër gi ca la ne bi bi bi bi bi ku baax ki demee borom daaru dafa toog dafa toog maanaam mbakki baari diir bu gàtt rek tubaab bi bind ko leetar ne ko nag maanaam léegi nag a tasaare daara yi tasaare njaboot gi ku ne nga delloo ko fa mu jóge woon parce que waaja demee dellu siwaat ba fa borom daaru mu ti jógee mbàkke ba wala ñëw am fa jafe-jafe yu metti lool ak njaboot sëñ Tuubaa gi mu ne ma gannaaw boo xamante ni bii sëñ Bamba dem na na mooy ñaareel ñetteel bi nag comme neex man nga ne saab sëriñ bàyyi ma kenn xadi moo ma ko wax ci télévision laay waxee faatoo gut mu ngi dund am juróomi fukki at ak nangam waaye li ma yéem loolu loolu loolu bi ma toppee taarix bi ba gis ne am na ay jamono dund bi di manqué léeg-léeg ci njaboot gi mu am comme dem doon ca sàkku maanaam ab dund mu xamal ko ne ko niwu fi te booba am na lu fa ne mu ne bu fekkee te ne liggéeyee koy joxe day man carno ren laa mujj taxaw fi doomu aadama di ko laaj ab dund mbay ma mbay ma mbay ma sottee mbojju maama yéem yaakaar naa sax am na kenn ku sëñ sëñ na njaay ko ko yaxal ci ab téeréem wax ci wax ju rafet lool Cheikh Njaay Jolof mbokk la bi yàlla dogalee maanaam ñuy bojj di bojj ba nga xam ne saako yi ñu doon bojj fees na ba amatuñu fuñ def lenn ci àdduna te saako yi jeexuñu mu daal di yittewoo ay saako wax ne dafa bëgg a yónnee njaareem ñu jëndal ko ay saako keroog sëñ mu doo balla fas wam yoroon lañ ko ne moom rek moo fi mën a dem njaareem dellu siwaat ndeysaan ma yéemu lool ci ndekete maam Cerno waxuma la jëmmam jawaaye dafa jëloon njabootam gépp tarbiye leen ñu nekk ci tool yi di ànd ak yi jàngal leen liggéey jàngal leen lu mu mën a doon ci àdduna yal na ko yàlla fayal Cerno kenn ku ne ci nun maam Cerno kenn ku nekk ci nun murit bu jébbalu bu ne a nga ko njukkal sa digg teg Seexul Xadiim ndax billaahi raxasim ne loolu wala di wax yaafus daroon na ko man na maa wàcc siñ Bàmba ne kon siñ Bàmba du fekk dara waaye ko bàyyee jàmbaar ñëw fekkaat fi lépp dara loo xam te sax ma ci ma ci la ma ci la ma ci gën a jaaxal mooy dolliku ga lii nga wax suñ Seex Awa Balla ci lettre yi gis naa lettre am boo xam ne bii ko jàngee rek da damay tàggu sama sago lettre boo xam ne sëñ Tuubaa di ko ci dénk loo xam ne ci njaboot gi su ma ko jàngee bu nekk damay tàng damay damay tàggoog sama sago nit ki nag boo ko wóoluwut doo ko dénk waaye loolu waykat bi naan Bàmbaa ko ne baal ba xëy ne ko bàyyil maam Cerno raw ci góor ñi man loolu laa gëm loolu itam mooy li nga xam ne moom lay dund waxuma nag man Cheikh Abdou Khadre laa yaakaar man Cheikh Abdou Khadre rek laa yaakaar waaye fonk daaru muxti fonk sëñ Mudu Awa Balla ma maa ko defee nag ci Abdou Lahad waaye gannaaw boo xamante ni bii gëstu naa xam-xam ba gis Cheikh Abdoul Khadir ni mu jaxasoo ak Daaru Muuti tax na nag ma fonk leen fonk goo xam ne gii maa ngi ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa la maam Cerno di séddale ëllëg yàlla na ci sédd te dara ji Seexul Xadim ndegam cofeel dara jëriñ nit ci ku baax mag yabaam maanaam foofu bu am xel yaar damaa fanaan suñu ko so yàlla yàlla yokk leeram mu ne bu doon daaru toog na fii ci bayti nii ko ànd ma jox la kon kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di siyaare waat sëriñ bi di siyaare sama xaritu bopp bii di sëriñ maam di di di di sëriñ maam Balla sëñ Cheikh Abdou mooma wax bii rek ne ma damaa bëggoon nu ànd dem ca dajëm daaru muuti ma waaye sëñ bi ëppoon naa ñàkk def joxoon naa ko sax ngànt waaye nag xam nga rek moom dafay sama nit koo xam ne lu ma lu mën dañ ko def rek danaa ko def ndax moom wax dëgg yàlla moom fa sama wëllëree maanaam sëñ xaadim ka ak moom mii maanaam ñu ñëwoon ak sëñ Sidi Ndiaye mais nga xam ne moom tamit su borom dafa dogal mu bëgg sëñ Tuubaa loolu bëgg xasida yi def jàmbaar yi fàkk tëdd joo xam ji xasida yi mooy liggéeyam ci àdduna muy waajal it benn bis boo xam la treize yi doon yal na la fekk sax nag sëñ sëñ bi te la treize yi incha allah foofu sëñ Sidi Ndiaye mais doon jàng bis bu mag boo xam ne bii gannaaw mag la Sëñ Xaadir gi ñu war a jàpp bu ko yàlla dogalee maanaam la la la cinq soin incha allah bu bis ba dellu si war a doon la treize moom tamit dafa am njàng yu mag yoo xam ne sant sëñ Tuubaa la ko tuddee xam naa waaw ba la fekkee dina baax loolu sëriñ bi kon maa ngi sant ñëpp di dellu siyaare sëñ bi di ñaan yàlla borom bi tabaaraka wa taala yal yàlla yokk soo fan yokk loolu faru se fa fanu fanu fanu xalifa borom daaru mooti taalibe yi bëgg nañu lool ngeen dinu geesu ci ñaan yi ndax nañ seen di leen ñaanal bu baax sëñ Maam Balla lii di si ci xaw Balla ñaanal ñëpp la koy ñaanal fan wu gudd ànd ak ngeen ak mucc na la woor ne sëñ mu doo Balla la jur waaye nag sa jikko nag may na la loo xam ne lii yaa moom ko ñu ngi sant yëpp di gërëm ñëpp di sant bu baax sëñ Cheikh Abdou di sant mbooloo mi di ñaan yàlla borom bi tabaraka wa taala yal yàlla defal nu tawfiqul haadi yi ci barki sang bu tedd ba barki borom daaru Muxti asalaamaaleykum wa rahmatulahi ñaan gi ñu ñaanal sëñ Bàll la sa waajur defoon sëñ Mahamadan Koso da nga koy defal sëñ Maam Bàll sëñ Abibullahi waajuram euh, bu njëkk bu nit ñi bayee ba pare ba gerte gi ñorub dugub ji sëriñ yi dañ daan takkulub saret di wër àll bi ñu leen di jox dugub ak gerte mu def ko ba ñëw koso fekk sëñ Mahamadan fekk sëñ Mahamadan nekk ci tawat mu ne ko Mahamadan faatoo goo maa lay njëkk a faatu te man dese naa ci àdduna lu mat juróomi at di nga tane. sëñ sëñ Abibullahi moo ko wax sëñ Mahamadan jox ko dugub yu bari ba mu demee ba àppam bu jub si mu ñëwaat sëñ Mahamadan ne ko Mahamadan dama bëgg nga jox ma uh, sama addiyee bàyyi bu ma demee ci maam Thierno dinaa ne ko Mahamadan ma ngay jàngale nekk ca lam ca war addiyee ji moom moo ko jox dugub jam ko jox dañ ko miiras abi eh. sëñ abi bu doyoon waar la ni sëñ mu raw balla meloon la mel cay borom daaru rek sëñ mu raw balla meloon mooy ñun borom daaru rek bor bor bor yàlla defal ak wér defal na ko ñun ñëpp ñëpp yéene bu a baax ñu koy ñaan barke borom daaru barke sëñ mu raw balla mais xam ne moom lu maxaan wax rek moom. waaw ko ñaan bu baax. maa ñaan bi yéen ñi nga xam ne. yéen taalibe yi. nun taalibe yi. ñun ñëpp bokk ñaanal ko. ndax taalibe yi kat nun soxla soxla nañ seenu ñaan. kon nag ñun ñëpp nañ maase ñaanal ko yàlla defal fan mu gudd ànd ko. gannaaw loolu it. ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp. te di rafetlu bis bi itam di jëkke nuyoo bi ci sëñ Balla mi ak sëñ Diabdu ak sëñ Xaadim mi di leen nuyu ci turu sëñ Cheikh Addi moom nga xam ne ci moom lañ bàyyi ko ko xamal ko ne ko fi te it ba daataan jógit xam na ne fii lañ jëm si ndax duñ umpante moom ci ci dara kon nag ñu ngi leen nuyu ci turu sëriñ bi te di gën a fàttali bu baax rek li nga xam ne moom la borom daal moo si daan wax rek jaamu yàlla liggéey ndax moom dara jàmbaar joo xam ne ji képp koo xam rek xam ne moom jaamu yàlla liggéey jàng ak ak taalib borom daal moxti nag ñun daanaka man lort nañ ci ci wax ci moom mm-hmm. waaye nag am na lu ko Sëriñ Tuubaa defal loo xam ne nii yaakaar naa ne ku wax ku xool ci saayir si rek danga xam ne sëñ Tuubaa defal na ko lu mu defalul kenn ndax koo xam ne kii ba mu gënee àddina da ko sëñ Tuubaa jëlal bopp yor ko musta tàggo moom ci benn waxtu ba ni mu ko yebale Mbàkke yor mu dem ba mu demee Mbàkke Kajoor nee nañ ba mu fay jóge xati yi rek ponkal bu bu bu yenoo saako pepp boo bënnee bu waaxoo dem fa balaa balaa bala moo àgg xati yi lekk saako saako saako dugub nga xam ne lu ne fekk na ko waaye teewut bi ko sëñ Tuubaa joxe ndigal ne ko nga sanc Daaru Muxti boo demee na ko tuddee Daaru Muxti te xam ne lu ma la fekkiwul rek dama ko amut daal nee nañ mag ña fa toogoon mu ne ndax xam nga mas ngeen a dégg wowutu ñu ngi ko déedéet mu ne fortu moo ko de daaru moti fortu moo ko ba mu àggee ndox amu fa dara amu fa njàmbaaram dafa am benn taali bu baax ci waa waa daal yi la bokk mu ne man borom daaru ni ma ko nawe mooy koo xam ne toog nga ba jamono yi muy sanc Darou Mouhty nga xam ne amoo dara loo moom sa bopp ak li ko yàlla jox nga xam ne ñeent fukki kilomètres yu gaa yu carré yoo xam ne moo ko moo ko gorul boppam moo ko boppam nee na man loolu rek ndax bi mu ñëwee foofa lu mu fa mas liggéey rek yëpp na ko sëñ Tuubaa tey bu doon doon wax ne borom daaru de am na benn waxtaankat bu daan toog ci ci wetam ne ko ñaar leetar yi de yow yi rek yaa ko mosam lettre bu jógee ci Touba ne indi dund ci kër gi yow rek yaa ma masa ak lettre bu jógee ci gouverneur général di sàkku ab dund bu mu jox soldat si ak ak prison yi mu ko yow rek yaa ma masa te liggéey rek moo ko may maanaam daaru maanaam googu nga doon wax dafa am mbokk moo xam ne mii dafa yoroon am sàq ci mbàkke bool mbokk mu jigéen mm-hmm. ñu ñu wax ko borom daaru ne ko ah diw de am na am sàq moo xam ne jégal na ko ñetti ñu yónnee ca mu ne ko boo demee na car sama sàq bi mayewul sarxiwul lépp la ba boo amee njëg ma jaay ko bu amul mu bàyyil ma sama sàq moom la borom borom daaru yónnee jënd sàq ba mooy dugub jooju nga xam mu dem mu ne bu fekkente ne liggéey rek koy may de. duutu duutu ma ko ñaan. bi mu ñëwee daal mu tiital li fa ndox di ñàkk ñàkk ñàkk dafa wax ne sama jàkk ji di ku jàppul bu ci dugg nga xam ne mag ñi lu lu ndox ñàkk ñàkk kenn ku ne da nga sa cata def ca ndox fexe ba waxtu jotee nga jàpp. wax nañ ne itam bu weer koor masaan dañuy takk ay fas wër daara yëpp dajale leen daaru moom ñu jiite leen naafi la mu ne leen de koor bi da ñëw moom munu moom mu ko nu sëñ Tuubaa moom ku mën a boole koor gi ak liggéey bi nga def ku mënul nga bàyyi liggéey bi te wóor xam kooku moom dafa jàmmuloo yàlla <laughs> waaw te lu mu fa mas liggéey rek yëpp na ko sëriñ Tuubaa wàcc googu nga xam ne wax nañ ko itam sëñ Tuubaa wàcc na ko yoon am na yoon woo xam ne ni wax nañ ne gerte gi mu njëkk a bay koso bi ñu ko biñ koy xool sëñ bi ne bu kenn yéeg bu ci kenn yéeg ab doom ba ñu liggéey ko ba mu sotti mu mu jox sëñ Matar ne ko mu yóbbu ko jaay ko mu bañ àggee ba teg ko ci bi sëñ bi ne sunu borom bi waxu ma ni lim bi eh, des na xëy dafa dafa dellusiwaat wax borom daal mu ne ko da ngay di delluwaat ca tool yi. ca tool yi foraat fa bañ ko delloo mu jaay ko ba mu àggee la ko sëñ bi ne ak sax <coughs> lim bi ne ma sama borom ko. kooku mooy borom daaru te li ñuy wax ne li ko sëñ bi defal ci saay rek wax ne ne soxna may kabir biñ koy bëggee jox sëñ moda bi borom daaru dafa gàntu gàntu yoon sëñ bi woo ko mu ne ko damaa xam ne ne mbàkke sa doom ku tàngal xooloon rek dem sa wax incha allah ma sama waa mu ne ko Thierno xam naa xamoo ne li ma defal bopp laa la defal. li ma laa la defal. waaye li nga xam ne soxna may kabir soxna moom soxna may sax. loolu daal moo rek la mhm. te loolu lépp cofeel sëñ Tuubaa am ci borom daal. seen ay mbag. wax nañ ne itam soxna May Kabir mas naa xëy si borom daal bi mu ñëwee siyaare ko ba noppi mu ko loolu say tànk mu ne ko mbàkki dama waaye ba mu tàggoo ba dem beneen néeg bi ak li nekk lépp nañ ko wóyal ndax doomu sëñ Tuubaa mën naa am bu mu bëgg fi daal te xam lu mu bëgg kon nañ koy yëg waaw koy yëg lépp soxna si daal di jël li mu ca soxla na ko la defaat naa ko indi kon nag noonu nan te suñu tànk foofe rek te góorgóorlu bu baax gannaaw loolu itam sëñ moo daa baax la mi wax sëñ Tuubaa da ko defal loo xam ne defalul kenn bàyyi sëñ bi wax na ne man sëñ Modou Abal rek laa gëm sëñ Modou Maxtaar nee na sëñ képp laa gëm dañoo dem màggal Tuubaa ñu màggal gi tas oto yëpp dem amuluma yóbbu nee ma dem wax ko mu ne ne ko man de maa ngi nii ñëpp ñëpp dañu amuluma mu ne ko ma ma Modou da am ay oto ba doyal ba di ko maye <laughs> moo tax moom. ak ak yu bare bare yu mu jaar ak moom kon nag nañ doole góor góor bu baax doole lu ci jaamu yàlla gi lu ci taalibe gi te xam ne sëñ Tuubaa la manoon tey jii la ko dax lim daan defal nit ñi tey la ko dax xëy na nañ ko daan sàkkoo rek moo amatut kon nag man doole góorgóorlu bu baax te soxna si yow ñu dina xamal ne sa bi kat nag moom mm-hmm. ah, euh, li ñuy wax spécial moom la ah, ndax dafa dajeeg euh, màggalu ceen gi te ñi fi daje it yaakaar naa ne jafe na ñu daje ñu daje mel ni am jafe na kon nag ñu ngi ñaan rek ci barke moo daal daal yàlla na yàlla doolu xéwal bu baax a baax te yàlla sàmm nu bu baax a baax te mësal nu ci bon bon réew mi te may nañu xew li ñun mën a eh, yóbbu daaru moo teg tur Maam Balla mi nag moom moom day kenn ci ñun mënu nu ko mën na wax ci moom daal waaye nag na ko ñëpp doole ñaan baax ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum fi ñu ko teg nag mooy yu dem ku ne bagage yi nga am nga yóbbu jëlale naa borom daaru nga xam ni kenn dox si digg ak moom waaye fi ngeen teg sëñ muudu ko ko fa teg boo xàccee rek mu dóor sëñ muudu laa xawma ko sax waaye moo toll noonu te yéen waa daaru moxti gépp ni bi ngeen teg borom daaru ngeen ngeen ngeen teg sëñ Modou te sëñ Modou mooy moom lañuy ñuy xoolee ni sëñ Fallou Mbacké bi muy tabax jumaa ji tani li ma boroom daaru waxoon bëggum ko ci dëkk bi yëpp def naa ko jumaa ci des danaa ci def li ma am bu jeexee ma ànd ak sama njaboot dem dokeeru ju yanu ji ca poor ba waaye pas-pasam tax na yàlla àggalil ko yéeneem ngeen wëlbati ku delloo ko njukkalam te sëñ Modou bu ne aha rek dawal daa fees del sëriñ Fallou Mbacke ñu ñëpp nangul woona Mbaye Diouf entrepreneur bi ni koy dégg naa sëñ Modou day day jumaa nga bokk ci njiit la mun ko ah waaw mun ko mbàyyaa kawrunu yor na xaalis mun ko ah jumaa juttal nii ku ko sémb mu ëpp fi ginnaaw jumaay Tuubaa kay war naa yor xaalis mun ko yor ñett dërëm ngërëmal yàlla la ni nag ci ni ko ni téeku lu mu wax yàlla def day sëñ Moodu la nun day gisuñu ku mel ni moom nun nag Cheikh Awa Balla mi nu yaakaar tey mooy sëñ Tuubaa mooy nii la defoon ci sëñ Moodu on Mbàkke taalib bii ñaanal leen ak borom dayiri bii li alxuraan xu wax ma yulaqaa illa su azim azim am na loo xam ni dañ la koy faggul muy ndimbal li nga wax ci daje bi ñun ñii ñëpp jëlale naa ñii waaye ñu ni daal wii suñ seex mbàkke comme suñu abib bu rek jar naa màggal mbakki borom daaru noo ngi ñaan nga ñaanal ñëpp fii nga toog jëmmi borom daaru ji ma sëkk nga ku xam cerno mbaa nga gis fotom sax bu la xoolee fii ne yaram war a daw waaw arrangé lu problème yëpp Mbacke mu jeex ngox te sama waa jii nag dama ko doon tooñ waaye féeti na ma fépp may danaa ko wax ndax bu fekkee dama koy siif nii laay def sama gars yi a ah, lu ma leen di jiital dama ko wax la ministre diw damaa soxla nangam ñoo jiit ma leen di jiital fu ma ñu ñu def bu yàggul sëñ maam Thierno noonu la ma def woowaa kër mu leen jong leen ko ñoom Lamine ak ñëpp neen da ngeen koy jong ëpp ñu ko dàq gënuñu ko sëriñ ëpp ñu ko xam-xam ko wax leen ko xaalis ak mbubb te lu ngeen xewle woo ko di ko jiital dal ci seen kaw ñoom ñëpp mi kii ci loola la nekk kon nag wax dëgg bu ma ko tooñee ma daal a kalaamee ak moom ndax sama waaye nag wax dëgg waaw wax dëgg mbàkke dégg ko waaw tey gannaaw loolu itam ñu di leen fàttali rek bàyyi Cheikh Anta dinañ ko ñaanal ndax ba fi sëñ moo daaw bala jógee bi ñu ko gisatul ci saay sëñ bi dox doos ne ñëpp ñëpp dañ na sëñ Modou Awa Balla kenn mënu ko wut. sëñ Boxdoos ñëwee bi mu fi jógee ñu ne sëñ Boxdoos mu jeex na kenn mënut ko wut waaye nag bàyyi si waat mi bi mu fi ñëwee yaakaar naa def na fi loo xam ne lii ah gis ku ne xam nga ne lii mooy borom daal moo moo te muy taxaw rek lu ko borom daal dencal loon la doon te bàyyi si léppam sëñ Modou Awa wax nañ ne. sëñ moo naa ball da ko daan tëraloo ci ginnaaw ba keroog bi mu waree dem dali jàng sëñ borom daaru moo yónnee ne sëñ Modou ne ko seex moom na ñëw dama bëgg mu dem dal loolu musul tàggoo loolu ba ba ni mu fi jógee ba nañ ko gisatul mu nekk ci gannaaw sëñ Moussa bi bari sax dañ ne woon sëñ Moussa mooy sëñ waaye teewul bi ab cëram ñëwee rek ku ne xam na ne am na cër motu cër ñun ñëpp nañ ko ñaaral yàlla yàggal ko fi ba lépp lu mu sumb sumbal borom daaru rek mu àggale ndax moom nee na daal moom li mu bëgg mooy lu ñu sumb rek àggee mu mu song leen ñu ko ñaan mu yàgg fi loolu tamit ñaan sëñ Moustapha itam yàlla yàggal ko fi wér ak njabootu borom daaru gépp dama doon wax sëñ Cheikh comme loolu <laughs> hmm. sëñ bi damaa am lu ma nett gi sëñ bi dane ma daa mos a toog uh, sëñ Modou ci penc mi ci ci màqama hmm. nee na sëñ Modou jékki-jékki ne ko uh, Modou Mokhtar mun na ko Mbàkke mun na ko man de bu sa gis sa sa sa maam maam hmm. xamoo ne su Seexaw uh, Balla ni toll lépp ak dara ji mu toll tolluma ci catuwe waaw ne ko damaa liggéeyal damaa liggéeyal sëñ Touba liggéeyal maam Thierno ba mu jël dara musu teg sama loxo ku ma neexut doo doon Thierno lii sëñ bi moo ko nettali ne ko dafa am bis boo xam ne nii dañoo ñëw mooy lim mu doon wax ne sëñ Touba musa musa nekk ak kenn ci biir këram. bi mu fay njëkk nekk daa yomb kër maam Thierno bu musaa ñëw njaarim kër suñ Balla Thierno lay fanaan. mu yónnee woolu ko na ko bis naka tey daa araam ci man ngay nekk ci dëkk may nekk ci dëkk te bokkuñ benn kër daa defarlu fa kees defarlu ko fa mu nekk ci bis bi sëñ Tuubaa daan na maam Thierno kan nga àndal ci fere yi mu ne ko Modou Hafiz mu ne ko woo mu ñëw wetli la ca la doon attaaya di ko jéggi ba sottee ko ci kawam sëñ bi tamit nee na ma bi sëñ Modou bi maam Thierno demee ba màggi di ko dikkal mu toog Darou Moussi sëñ mag bi daa woolu sëñ Modou mu ñëw mu ne ko Modou Hafiz mu ñëw mu ne ko damaa bëgg nga dem toogal ma Daaru mus yoral ma sa bàyyi boo demee ba gisatoo maay ñëw dugg ci sa biir képp ku la man la fay fekk te man xajuma ci tànk kenn waaw moom sëñ bi moo ko nett ndeysaan sëñ Modou yàlla na fi yàgg moom it ni lay ngay jëf Mbakke kàddu yi ma sànni xaa doon ay kàddu yi xanaa kàddu yi loolu ni ñu wax rek kàddu yi ci lay doon rek kàddu yoo xam ne man day day yàlla ci man daal comme yow ni ko seex waxee léegi yaa fi yaa fi borom daal moo fi suñu ñëpp waaw léegi yàlla defee nekk fii ak mbokk bi nii boo fi ñëwee war naa jottali la sant boo xam am naa ko ci ñoom hmm. ak taxawaay boo xam am nañ ko ci ci liggéey bi hmm. waaw eh, jàmbaar nañ lool waaw liggéey bi itam farlu nañ ci lool hmm. man mii wax yàlla ñu may ñu ngi may ñu ngi may jàppale ñu ngi may taxaw. liñ li ñuy yéen yu baax ñu wax yëpp ñoom ñoo ñoo ñoo ma xajo yéen a ma jàmm rek. waaw waaye lépp ñoom la nekk tax daal maa ngi la koy maa ngi lay jotali cant boo xam ne am naa ko ci ñoom ci ma seex ak ñoom muy liggéey borom moo waaw di ñaan tam nga nga ñaan leen ñoom ñëpp. yàlla fa seen aajo te may leen mhm. jàmm. waaw ñoom itam ma xamal leen ne suñu seex mii na ko suñu seex Abdou wax léegi nii waajuram mhm. man dama a mbaa mooy mooy suñu baaram moom maam Thierno Ibrahima ah, ah, ah. ñëpp ko xamoon waaw waaw dalaa wax rek lu ma ko yàlla def waaw ñëpp daa wax loolu waaw moom mi rek la bàyyi itam waaw xam wax ne itam ci turandoo yi suñu Cheikh Khady fi mu toll ne naa wax ne amu ko ci mag waaw li mu doon wax tam keroog bi mu jotee Baye Cheikh noonu éggu ma ko jotee Baye Cheikh moo ko dama ne ma baax la loolu Baye Cheikh wax keroog waaw loolu ma wax keroog ne dama xam ne ku baax la waaw la waaw mu fi seet ne xam naa li mooy xam naa li mu fi ñëw bariwut wala gëj na fi bu ko nu nu nu xam ko te te te te ñaanal ko moom itam yàlla yàggal ko waaw te may ko jàmm ak wér waaw ku ko mën a siyaare itam mi ngi kër Thierno Sall la nekk xam naa tey jàll Italie waaye dina ñëwaat waaw di sant itam kii fii nga xam ne fa la ñuy defee daayira tey itam ñu ko waxee léegi nii soxna si itam moom itam day gone la waaye Cheikh Balla juñ na ko léegi moom itam mm-hmm. ku xam la waaw ku am kër kër suñu ceerno jëluñu ko daa defee waaye moo ñaan ñu toxal ko tey ñu ko itam xamuñu woon sax day day day màggalu ceen gi tey waaw waaw ginnaaw lañ ko wax ma a ko li xanaa ab denc bu ñu la dencaloon la waaw waaye yàlla comme commande la xëy na pas-pasam ak taxawaayam xëy na la ko yàlla fay di tey waaw mooy tam sant nañu bu baax a baax xam nañ tam tam ni nga waxee sas na waaw ndax ni nga wax ci borom daaru moo ci léegi képp kuy tudd rek mooy saw sas rëy na waaw waaye fas na doon ay taalibe waaw fas na yéen góorgóorlu man tam waaw incha allah jërëjëf Mbacke baax nga lool tooyaf baax nga lool Mbacke آمين آمين وإن تولوا فقل لا إله إلا الله توكلت اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها وتغفرنا بها جميع الحاجات وتحرمنا بها من السيئات وترفعنا بأحبك بلغنا بأحسن الخيرات الخيرات في الحياة محمد salaatan najjanaa boobu salaatan najjanaa boobu ba borom daaru nee na. waaw. sëñ Tuubaa nekk ci géej bis bu set bu jàngee kaamil bi mu jàng ba noppi dana dana jàng salaatan boobu junni yoon ñaan sëñ Tuubaa ñëw si. waaw daaru ko daan def mboolem di sëñ Tuubaa ci géej gi rek bis bu set dana ko jàng junni yoon waaw ba ña ngi koy def ci jumaa bi. ku man di jullee ka wir dakay joxey alalam na jóg te def ko te bum tax muy kasit ku manul ku man ja ba xam araf ma xam na sant yàlla te bum tax muy yabit ku xamul yàlla xamal ku fi xam yàlla amal ku fi am moo sàkk ndab yi def yiw sàkk ndab yi deful yàllaa fi teg ndab moo tax lépp ndab lu nu gis nan koy ngir boro mam nun ko bonal foo gis ku bonne ko yàl na lu yàlla boole yërëm xamal ne nit amewul boppam ne kon mu jubal ab lar nu muy doxee kay rëyloo ka xeebi kemam kuy xeebi nit xamagul kuy rëy luy du rëyagul ku rëy du rëylu ku am xam-xam du xeebi kemam mbaa kon nga xam ne dafay safwaaju xam te xamul yàlla jagoo rëy te waajuy rëy mu dal di alak saytaane xam na ne rëy baaxul ne moo ko bonal mu jóg bàkk njaar mi borom cant gi ba ngeen xam ne kookooy Sëriñ Saaliw ci saayir sa lay tàmbaleeg baatinam ba ngeen xam maqaamaam Sëriñ Saaliw sigil bàkk maam soxna faat jaaxate moom mi bur yàlla jagleel sëriñ saaliwo maqaamaam ayoobaak mu ñam gammamoon moom la bur yàlla jagleel sëriñ saaliwo maqaamaam suleymaan akub sañ sañam moom la buur yàlla jagleel sëriñ saaliwoom isa ibnu maryama ay tedd am moom la buur ca bis penc la nuy xam garaatub sëriñ saaliwoom xasaay la Seex Bamba naan ik fi nii ca la yilim turam mooy Sëriñ Saaliwoo ca tag gémmiñ ak bët bu waay ak rawaan ku leen bëgg te deel si kar Saaliwoo rëy bon du teeman ma jóg jëm ci yow na yow dong laa am ci ab jublukaay ter du teeman ma jóg jëm ci dex di yaakaara set nag ba gën ñépp waay amul gàkk boo xam ne mën naa waral ma jóg mooy la ngir yaa di saa pootukaay su may riir a kay takka kay bon jëfit samay njortu ñaawul ci yow gën ji baay ñi baax ak ñi bon seeni jëf moo koyor yor moo gën ci ñoomi nday ak ay nijaay danga am kudul nun te nun amunu nag kudul yow faral def nu ab jublukaay li lee tax ma far dëddu ndaw dëddu mag te jëm nag ci yow def la ab jublukaay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 du nekkin mukk ngal doole ak rëy lu day xañe kaw ak suufe day maye kaw ku rëy du jëm kaw du nekkin mukk ngal doole